drapeau nggak Sokh Sokh Siteu bu Saloum Siteu bu Saloum moo ñu woon gannaaw drapeau Ngane Sokh Sokh moom lañ jàkkaar lool drapeau Ngane Sokh Sokh Siteu ale Ibrahima Sarr ñoo bigee Ya kasar Mara yaa waay faatu dundal Abdoulaye waay dundal waaw waaw ma ne ko Siteu bu Saalum moo ñu woon ginnaaw maa la wax loolu Baye Fall la ma ne Baye Fall bee wootee moo tax mbir mi day saf Baye Fall waaw waaw ma ne ko Cissé bu Saloum Big Mama borom Gandiaye borom Melo akta ak Tampon Ndaw bu Foundiougne waaw waaw 150 000 xaalis la gaay ne dañ dama bëri wax waa direct man leen noppi naa bul commenter teewul bul wax ba sa fa xan xana jagi ñala ya njelel lay fo mbeñi waaw waaw babu ngar ba Siteu bu Saloum jaxabal ba ñorul waaw waaw he xoto ngay feeñ woy woy xot wuy arbitre ate xot xoto ngay feeñ arbitre na ate wuy jaxabal ba jaxabal ba ba waaw waaw daan na ko jaxabal ba ñor woy woy babu ngar